projection quelques trois minutes du 23 juin xam nga fi ku ne xama ku la mën da nga ko dul nangu non gars yi ragale leen fii rek nga leen yéen ñii yeeg ilaaju ko mën mais on va dans les la <laughs> là c'est je suis responsable de tel parti je suis président de tel candidat votre leader et p leader du par rapport à ce qu'ils ont fait eux deux dans ce pays-là c'est qui mu ne bu ngeen yemalee cër am ñu gedd seen cër mais ku nekk xam nga ku la mën da ko dul nangu wala nga am ay fenkat nag ak ay ñu lay ñoo neexal xanaa ñu di lay di la di di la di la ci ci ci rajo yeeg yi daan président ëllëg kooku lu def ci réew lan la fi def lu may rey doomu jàmbur yi dem leen dee ñuy dee montal combat wala nga ne dund leen ku dee sa yaay un peu de respect pour la vie humaine ce sont des gens comme ça qu'on essaie de promouvoir partout dans les médias quand je vois les gens les défendre et les et les journalistes éviter le les représentants de ces gens-là pour faire la propagande pour des tueurs des gens qui sont là pour le mortal combat Sénégal kenn du ko jox ku rey nit ñi ak ku ne ñu leen dee dund leen tekki leen dimbali leen seen waajur waaye dee leen pour man yaay kan yow yaay kan doo yeneen di ci yeneen bi laa jógee sama turandoo sallallahu alayhi wa sallam yaay kan yaay kan pour xale di dee seen yaay di juraat yow yaay kan j'ai mal quand je vois des fumiers des poltrons des vauriens supporter un discours pareil ayant peur de l'homme qui menace dont la vie politique s'identifie aux menaces les menaces les menaces dinaa ko rey jusqu'à menacer le chef de l'État président Macky Sall dinaa ko rey wala mu rey ma mais quel est ce discours de rey rey rey rey dund man dund laaw dund dund dund dund danaa leen dundal ngeen lekk ba suur naan ba mandi am liggéey waaye dee leen reyante leen xeex leen xeex leen leen kii loolu mooy lan tàppe di ne pat ne muut yambar ba bëgg a dee yambar xaw ma koon Sénégal Sénégal de la Dior Ngoné Latyr Diop de Albouri Ndiaye de Fodé Diouf mon grand-père dernier roi du le père de mon père c'est dernier roi du Saloum ñun dañu am ay valeur doo jógee ci àll ba rek ñëw dañu napp ñun kenn ñu on est innappable kenn ñu napp on va avoir un sang royal et se laisser intimider quand même on ne serait pas un roi dañ la koy waxal waaye nekkuloo ko kon El Hadj Diouf tax mu ñeme ban ñeme damaa ñeme li ma doon laa nekk rek yëgul lu ma sax sama yaram waaye nag <laughs> kenn du ma napp de ku ñu ku nangoo ñu napp sa affaire la sa jabar jéppi na la say doom jéppi nañ la ëllëg Sénégal jéppi na am leen fit waay Sénégal yi am leen jom waay nañu ànd xam ne réewu Cheikh Ahmad Bamba cey waay réewu El Hadj Malick réewu Baye Niass suma mbokk Kaolack réewu Limaamu Laay réew bu Kunta ci jàngu bi ba Popenguine waaw réew moomu benn xale dina ñëw bëggul senegal naan day def monnaie locale bu gayee dëkkam ana monnaie ba kàcc rek xale boobu fen na ba nëb yaram mooy mooy dox ci mooy dox ci yaram bi di taxawaalu ci yaram lu la wax rek incapable de dire la vérité mais gars yi la législation où est la monnaie locale <laughs> bu parce que bëggul senegal foofu la bëgg dee na monnaie locale kay du monnaie nationale de ana monnaie locale ba sax fen rek kàcc rek naxee mbaay rek waa ci kaw fen la ñu nar a yore Sénégal personne du ma so yàgg ci moom dama ñëw après sama programme pour wan leen kooku moom mbokkul ndax fenkat di ko def suñu dëkk fii la taxaw ne Macky Sall am na droit troisième mandat moo Barthélémy Dias def naa conférence de presse Café de Rome wane leen ñoom bu ñuy wax waaye depuis ñaari at lu ñu campagne toute la campagne de ces éléments là c' est Macky ne fera pas un troisième mandat s'il veut paix dans ce pays là mais ñi kan la yëpp Macky a droit à un troisième mandat ensuite vous battez campagne pour dire Macky ne doit pas se présenter pour un troisième mandat pendant ce temps là vous dites du ma seen nawle pendant ce temps la de tout temps c'est l'ami de Macky Sall parce que c'est nom homme de vérité qui disait à son ami doo fi def troisième mandat si je mens je donne je à la presse de me dire maître vous mentez j'étais constant au de me, au de me rendre hommage à travers les émissions de télé et de radio personne ne m'a rendu hommage au moment où tout le monde disait président F24 on va faire d'angam campagne pour qu'il n'y ait pas troisième mandat moi je dis à mon ami vous êtes mon ami mais vous n'avez pas droit ferait pas un troisième mandat est que je l'ai pas dit gars yi waaye kenn du cee dugg a répété ñaane ngeen koo wax Sénégal yi dañuy ñaan léegi wala parce que bu ñu ko waxee dañu may jox pouvoir ndax fenkat yi waxoon ne am na ci droit ba yàgg dañuy campagne naa wala amu ci droit la ñuy teg naan ñooñu am doo ko fi defee de fenkat la dañuy reyante ñoo ne woon am na ci droit man de tout temps yaay sama xarit waaye doo ko fi defee wala ñu ne pourtant il a judé il a le d'être l'ami de Macky Sall et d'avoir toujours dit qu'il n'acceptera pas un troisième mandat waaye du benn média booy dem dégg ñu wax ne El Hadj Diouf waxoon na fi lii pourtant ak am fit pourtant ak am fulla pourtant lu mu ànd ànd ak yow dëgg da la koy wax waaye ko ko wax da nga koy valoriser te ci télé yi dañu côté télé bu ne am na koo faral rajo wu ne am na koo faral te boo sañoon kooku mooy nekk président fekk kooku sax yemu ma ci ci wee mais dañ may nëbbal samay jaar-jaar ak samay jëf yu am valeur teg fi jëfi fenkat yi warkat yi reykat yi les tueurs les voleurs les menteurs les propagandistes les les populistes c'est pourquoi ma candidature est légitime pourquoi déjà à l'université de Dakar j'étais le numéro un du mouvement étudiant de Dakar j'étais le seul il n'y en pas deux le seul étudiant notez bien élu par la faculté de sciences juridiques et économiques à l'époque maintenant c'est juridique et politique avant c'était juridique et économiques il n'y pas encore de sciences politiques à l'université à l'époque